ñoo ngi fi ci diwaanu Touba ci euh, plus précisément ci euh, côté Daaru Marnaan bi ci garage Dakar bu njëkk ba donc depuis 9 heures du matin ba instant bi ñuy nekk di wax ak yéen nii euh, police ñu ngi fi nekk di jaamaarloo ak jeune Touba yëpp jaamaarloo ko méttee méttee méttee métti comme ni ngeen koy gisee ci image yi donc ja jaamaarloo bi nag li ko waral lenn rek Euh, ci début ba bi muy doog a tàmbali euh, chauffeurs yi ak emprunté yi ñoom ñoo ñoo génnoon di marche euh, donc ñoom ñoo ko tàmbali woon ñuy wax ne dañoo bëgg état bi bàyyi leen ñu dem ñu liggéey muy chauffeurs yi nga xam ne dañuy yëngu ci transport en commun donc bi ñu génnee nag. commencé di taal ay pneu mu mel ne jeunes yi nga xam ne tamit dañuy liggéey ñoom ñëpp ñu profité waale ci occasion bi jénnaale ndax bu ñu seetloo itam dañuy dañuy bu ñu bàyyee xel tamit ne Touba jamono ji ñuy wax ak yéen jeunes yi ngeen di gis si mani ñuy manifester ñoom ñëpp ñëpp ñëpp à quatre-vingt-quinze pour cent nekkuñu Touba liggéey wuñ Touba donc transport en commun yi nga xam ne ñoom lañ tere ñu ñu ñu ñu dem donc euh, moo depuis am ñu nga depuis Rajab ba ñu fi si Rajab euh, juste après le président euh, décrété woon état d'urgence donc ñooñu ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon depuis Kazu Rajab ba léegi mënuñoo génn liggéey ndax transport bi nga xam ne président daf ko daf ko arrêté pour xeex Covid 19 bi donc jeunes yi nga xam ne ñoo fi nekkoon taga témbe fi depuis Kazu Rajab ba léegi ak euh, ñi nga xam ne donc euh, ay ay ay chauffeur lañ ñii ay emprunté lañ léegi nag ñoom ñëpp ñëpp ñoo génnandoo dajaloo fii tey euh, ci tali bi di fu ñu taal pneu saboté foofu noonu sotti fa mbalit sànni sànni ay ay ay ay xeer donc def fa ay xeer ba nga xam ne oto yi du ñu mën a avancer. waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Omar Faye man maa jiite collectif des jeunes de Darou Marnane ñu am combat bu ñu opté woon xeex coronavirus sensibiliser nit ñi mais mu dem ba affaire yi ëpp loxo li fii xamoon nañ ñu fii lañ jëm parce que chauffeur yi ñoo ngi dund lu méttee méttee métti. transport bi ñu même ba 3 mois fi mu nek transport urbain bi mënut a dox chauffeur si nga xamni ne ñoo yoroon seen auto daan dundul seen i njaboot ñu bari wéru won seen ginnaw tay gis nañu limu jur tay xalaatu won fi acteur dina acti fii nii tey nit ñaa dund situation bu met ni ñangi dem bay manifesté wu ñoo ngi interpeller état président Macky Sall mom moy seul responsabilité na juk te jëwaat transport bi dina cour feu bi état d'urgence bi ban naka bo wax na ñu dundale at febar bi kon nañ jéem a def loolu noonu jël ñuy mesure bàyyi nit ñi dem liggéeyi parce que askan bi sonn nañ dañoo sës lii nag fu mu jëm bu ñu si deful nànk dina doon lu jégg dayu si la ñuy woo kilifa yi ñu dugal si seen i kaddu loolu lañ daal lañuy ñuy sàkku si ñoom ndax lii nii metti na parce que mënoo gaal sa oto 3 mois amatoo looy def mënatoo dundoo say njaboot mënoo toog di xaar état si dara li ñu yore as néew ceeb bi mun mënuñu ko séddale askan bi kon nañu bàyyi nit ñi dem liggéey ji dundal njaboot loolu daal la ñuy ñaan wasalaam. wut defuñu dara waaye lii boo ko gisee daanaka kii nu yeew rek moo ñu teg mbooloo lii lépp ñun nag li ñu bëgg mooy mu bàyyi ñu ñu dem liggéey si jàmm ak salaam. dara nag moom lañ soxla soxlawul ndimbal soxlawul dara nanu ñu dem liggéey mbooloo moo ñu topp. ñu ngi ñu dundal am na ni ndey am ay baay am ay nijaay ñu war ngeen jëf yéen mbokk yi euh, comme ni ngeen ko gisee journaliste yi maa ngi leen di wax léegi ne ñu ngi woon entre euh, takk der yi ak jeunes yi nga xam ne ñoo nekk di marche tey donc comme li ngeen ko gisee kii kenn la suñu kenn la ci su ci suñu mbokk journaliste yi suñu collègue la donc xeer yi nga xam ne moom la jeunes yi doon sànni ñoo benn moo ko si laal nii gaañ mu mel ne tey jii bi ñu xëyee xar kanamu Touba yeewoon na beneen xar kanam boo xam ne mii nuñ ko ci Touba muy xalé yi génn ngab ay xeer lok ak way tak der yi ngir eh, dakal dem ak dik bi fi ci diwana Touba ak liko ko wër bi nga xamé né ki leen jité ñom ci walu transport waxon na né buñu accès tay ji dañ dakal dem ak dik bi lolu itam liko sabab moy xamna li ci ëpp moy toga yu yi yàgg na ci kër yi eh, toga bi yàgg na xale yi bëgg genn set solution pour mëna liggéey euh na mbokk moko laaj légui mu né ndax jotul woon kilifa yi mëna na genn def ben eh, jangat ci dem ci kilifa yi ak ñom kilifa dëkk bi ñu mën a waxtaan ak xale yi ba bu lu mel ni amee xale duñ mën a génn ma ne ko ah kay joote mooy jiitu joote joote mooy jiitu joote mooy dañoo waroon toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xool solution xool yoon bu ñu tax xale yi ngir ñu mën a génn liggéey yi xale yi Tuubaa du dañoo bon du dañoo dëng du banditisme moo leen jàpp xëy na toogaay bi moo leen jàpp ak méthode bi te itam xam naa ne ñu ci bari bëgg nañoo génn liggéey yi ñu gis ne kon euh, war nañ ci seet solution te wax ne nit ki nag boo koy topp muy arrière bu sisee ci biir mën naa ñiy topp am muus li ko kar xam nañ ko rab woowu ñuy wax muus saay boo ko karee ba mu sës ci ab miir la muy def mooy li muy tuut tuut day engagé dal sa kaw ngir lan wut buntu kon xale yi jàpp mu ne dañoo génn ngir sànni xeer ngir xeex wala dëng wala leneen damaa jàpp ne dañoo génn ngir euh, wut buntu ngir bëgg a génn delluwaat seen bërëb bi liggéeyukaay ndax nag coronavirus yàlla na ko fi yàlla jëlee feebar la bu doy waar metti na lool ñu wax ne ni mu wàllaatee gaaw na waaye am na beneen coronavirus bu gën a metti boobu